ndi jigéen mooy doxal politique nit sooy ut góor bootuloo si gannaaw jigéen sa dara du baax sa moromi jigéen muy ut bootuloo sa gannaaw moromi jigéen sa dara du baax kon jigéen dafa important torop comme lu ñu wax fii nii suma benn yaay lu mu wax góor lu mun jigéen mun na ko xànkay man gom naa loolu góor lu mun jigéen mun na ko